fi jotee alors naa ko léegi ci euh, ndorteel bi euh, bi la jotaay dañ koy daal di door rek kàddu yi nga xam ni le député Cheikh Thioro Mbacké daal na ko yëkkati euh, jëmale ko rek ci ki nga xam ni moo di Ahmed Suzanne Camara ils sont ils sont la source de tous les maux dont souffrent les Sénégalais maintenant ils se permettent d'aller dans les plateaux de télé pour nous insulter l'État doit prendre ses responsabilités avant qu'il qu'il ne soit trop tard sinon les Sénégalais prennent trop c'est trop yi nga xam ni jëmale ko rek ci Ahmed euh, Suzanne Camara mhm. ginnaaw bu mu yëkkatee ay kàddu jëmale ko ci premier ministre ak euh, kii di euh, njiitum réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mhm. moom député bi nag mu ngi koy xamal ni kàddu yi ëpp na daanaka sax ñoom ñoo waral métit yi nga xam ne mi ngi sénégalais ñu ngi koy daal am donc nag ñooñu ñoo delluwaat ci plateau télévisé yi pour tourner rek di leen daal di saaga donc nag moom mi ngi sàkku ci lii di état bi mu jël li nga xam ne nag mu di ay responsabilité am wa ilaa rek askanu Sénégal ñoom dinañ ko daal fajal seen bopp tey ji nan nga mën jàngatee tontu bi nga honorable député jagleel na ko kii di Ahmed Suzanne Camara. waaw xam nga man li Cheikh euh, sëñ Cheikh Thioro Mbacké wax dafa am solo. Mhm. mooy boo delloo un peu si ginnaaw c'est-à-dire yoo xam ne ñoo dunduloo Sénégal lu metti mhm. je du Sénégal en général. ay nit ñoo xam ne ñoom ñoo dundaloo Sénégal lu metti mhm. du ma wax sax li li li li jiitu mais de mille à 2024 bi ñu nekk. Euh, mu nekk période boo xamante ne ni sur tous les plans c'est-à-dire des gens yoo xam ne ils se sont permis ah. alalu Sénégal ñu luubal ko ba démb ak bërki démb gis nga euh, sorti euh, ku mel ni Fadilou Keita def mhm. c'est-à-dire da ngay xam ne kii li muy junj c'est très grave mooy une situation catastrophique mhm. le président ci biir discours am peut-être xuusu si bu baax a baax mais si biir li mu wax la dernière fois bi muy jàkkaarloog presse bi mhm. président mi ngi expliqué que réew mi mi ngi toll ci état bu catastrophique peut-être waxuñu lépp et pour moi loolu aussi euh, il va falloir que ñoom ñu communiquer tenir benn langage de vérité comme ni ko Pape Alé Niang waxee. Mhm. wax ak sénégalais li xew. mais état des lieux boobu ñuy def noonu toj-toj yooyu ñu fi fekk. Mhm. ba réew mi nar a nërmeelu daanaka situation boobu ñu fekk ñan ñoo ko fi def. Mhm. des gens yoo xam ne waxuma la alalu Sénégal mais suufu Sénégal ak yow gis nga li ñu fi révélé ci ay ci ay scandale bi ñu bi bi fi nouveau régime bi nekkee ak léegi. alalu Sénégal yëpp ñu jël ko foowee ko. suufu Sénégal xaalisu Sénégal lépp ces contrats yi ñu doon wax réew mi ñu jël ko foowee ko. Mhm. et à un certain moment j'ai l'impression que nit ñoo ñu noonu ñoom dañ ñoo yëpp parce que li ñu dund ñun ci euh, lu metti mhm. ci ci biir réew mi ñoom ñooñu ko teg mais ñan ñoo nekkoon derrière le complot Adji Sarr. Mhm. ñan ñoo taxaw mu leer leen ne ce rapport don Ousmane Sonko parlait euh, existe bel et bien. Mhm. ñu jël Ousmane Sonko yóbbu ko ci kanamu yoon tere ko mu nekk candidat ñan ñoo dem recruter ay nervi yu wàccoon ci mbedd mi di rey nit ñi. Mhm. loolu yëpp xew et puis ces mêmes gens ils reviennent yaakaar ne loolu mooy continuer maanaam ñoom ñoo doon teg nit ñi lu metti mhm. saaga du lu bees mais ñii di saaga tey ak euh, ci ci régime bi mais démb ak bërki démb ces gens bi ñu nekkee si opposition bi dañ leen doon saaga mu am une bu ñu am mooy fii ak yaa ngi ànd ak pouvoir boo doon saaga ku la neex kenn du la si topp. loolu léegi ñoom dem nañ ba changement de régime am na mais dafa mel ni ñoom dañoo jàpp ne loolu moo war a continuer mooy tey da nga doon toog daggal Ousmane Sonko ndey. du mujj fenn parce que c'est un opposant saaga kay li si grave mooy nga moom ci saa si tëj la si kaso bi. mais boo tas boo saagaa Ousmane Sonko boo saagaa opposition bi du mujj fenn parce que ñoom moom euh, période boobu lu neex waaye teg leen. léegi nga dem ba benn moment ñu jaar si élection présidentielle Macky Sall. gàddu naa ay bagaasam dem 4P. Euh, mhm. nga yaakaar ne mais yi fi réewande yooyu amoon ci réew mooy continuer toog ku la neex nga daggal. Mhm. ñii nekk oppos dafa am loo xam ne pour moo tax sànq maa koy wax ma ne est-ce que duñ dem jëliwaat ñii xoolaat seen bopp yi est nañ en fait. daanaka moom position bu mu taxawee woon daaw ak daawat jéeg moo taxawee ba tey. saaga wax lu métti mhm. yoo xam doo ko bëgg a wax. cest à ñu faj la ñu lijjanti la matul sax galaxndiku waxuma sax kilifa yi ngay tooñ de. ka fa gën a ndaw ka fa gën a ñàkk solo. dafa am nu réew nag di doxee. mais bu desoon rek ci yëfi réewande yii nii ba koo lijjanti rek mais yow sëñ bi gars yi pour ñu lijjanti la matul seconde. yow déjà yow amul dara loo xam ne war nga ko mën a jaay. politiquement kilifa kilifa moo tax ma ne muusuñu yow kilifa ga nga doon yaakaar di topp si ginnaawam di saaga sax moom ut na fu mu làqatu ji yow nga toog di waate am na loo xam ne du intelligence moo tax ma jàpp ne ñii man dama foog ne seen bopp yi dafa dem. Mhm. wala da wala ay nit yu repp lañu. wala lan la ñu bëgg mhm. heureusement que am nañ benn euh, ay njiit yu xaw a yu am retenu ci côté boobu. Mhm. mais je pense que nag am na loo xam ne mënut a jàll. nit ki mënoo ko jàpp topp ko tëj ko ci kaso bi mais rey ay nit. teg réew mi lu nekk et chaque fois c'est eux qui reviennent encore pour di continuer di teg pression ci kaw nit ñi. mais question bi sénégalais yëpp di posé mooy lan la procureur di xaar pour autosaisir ci mbir mi ndax daanaka sànq yaa ngi koy ay jamono si ginnaaw genre kàddu yi ku ko yëkkati moom daanaka bu doo añee sa kër moom depuis mu ko yëkkatee ba léegi amawul benn information bu nu wax ni carrément procureur autosaisir ci mbir mi jot na convocation <laughs> <laughs> loo xam ne waxuma la sax procureur di la woo mais nit soo muusee tuuti si la am na loo xam ne waroo ko def. Mhm. parce que yow Ahmed Suzanne benn waaye bu doon taxawal lu biir APR rek tekkiwul fa dara. Mhm. dafa mës nekk ministre. Mhm. dafa nekk député. lan la la doon biir APR. dara ñi fa tekki woon dara sax sañu ñu def lii. yow benn waay à chaque fois yow saa boo waxee rek waxi dof ngay wax wala loo xam ne mais ça ima xoolal le cas de Bah Diakhaté. ana Bah Diakhaté tey mu ngi ci kaso bi ñu tëj. ana président Macky Sall mi taxoon muy saaga. dem na yoonam ca wetu Macron fële di lijjantee affaire am. Mhm. na loo moo tax loo xam ne intelligence rek boo ko amee doo ko def. Mhm. donc pour man lii muy def nii mais si la man am na yoo xam ne bu desoon si man. Mhm. non man ay yoon sax du si am quoi loolu nag fa laa mën a yem. Hmm. waaw mais mais mais genre yi est-ce que nekkul di chercher. maanaam comme par exemple le retour de bâton bi Papa Alé Niang doon junj maanaam tey jii yëkkati naa ay kaddu sa nguur Macky Sall yéen a doon gis est-ce que rek loolu lay chercher encore maanaam ku yëkkati ay kaddu euh, police ñëw jël la jàpp la yóbbu la si li nga xam nag moo ci kaso est-ce donc nekkul loolu lay chercher pour jaxase rek li nga xam mooy régime actuel ak euh, ñenn si askan wi fi ngay daanoo le hmm. problème mooy yow actuellement nit ñi ñu ngi naan lan moo tax jàpp ñu waa ji ba léegi hmm. xam nga yow yaa ngi yaa ngi wut ñu jàpp la pour que après nga ne gis ngeen ñoom ñu ngi nii ñoo doon bañ ku ñoo doon wax ne Macky Sall dafa doon persécuter opposants yi et puis nag opposant suñ koy wax du Suzanne Camara moo tax un opposant au moins da ngay mën gagner sa bureau de vote te Sénégal nag nañ waxante dëgg ñi fiy wootee woo opposant ak ñi fi ne di wax ñu si bëri saa waay tekkiwuñ dara si réew mi maa leen ne amuñu dara si réew mi yow munoo def rassemblement bu bu cent personnes ñëw. mënoo gagné bureau de vote ci élection présidentielle ci élection présidentielle wala locale wala législative. Mhm. mais da ngay tey ji Amir Suzanne Camara nga xam ne benn baas baas baas bu xaw ma deux mille francs xaw ma deux mille cinq cent yooyu mënu koo feesal. Mhm. te tey boo ko laaloon ñu ne waa ji dëj na benn opposant politique. Mhm. qui est politique. donc réew mi li fi nekk man da dem ba benn moment doo comprendre quoi c'est-à-dire yéen man en général ah. yéen sàcc alalu réew mi. ba kilifa yi fi nekk di xool naka la ñuy wutee ay pexe pour mën a sauver réew mi ci guute gi mu naroon dugg. Mhm. après ñoom ñooy taxawaat ne leen non réew mi doxul quoi seen 100 jours dara baaxu si ñoom ñoo nekk si biir réew mi rey fi ay nit. Mhm. jël fi ay nervi loolu yëpp mi sunu kanam te man gëm naa ne lool moom question de temps la yàggul dara mi ngi ci sunu kanam. dinañ toog mhm. lijjanti ko te bu buñ ko lijjantee après dinañ xam kuy wax ak ku dul wax. mais dama gëm ne lépp loo gis dafa am euh, période boo ne si la war a amee. nañ am patience. Euh, dégg naa la le ministre euh, biram Souleye Diop muy wax ne sàcc bu dul daw jarul yàqi nelaw. Mhm. noonu laa ko jàppee ah parce que peut-être ñoom ñoo xam ban approche lañ siy demee. Mhm. Euh, ak lan la ñu mën a communiquer lu ñu mënut a communiquer. am na loo xamante ne gëm naa ne bis bu ñu ci eggee dinañ ko lijjanti. Mhm. am na lu nekk ci suñu kanam mbirub assemblée nationale bi pour abrogation loi d'amnistie mi ngi suñu kanam. yeneen ak yeneen lu jëm ci euh, reddition des comptes bi annoncé nañ ko ci euh, prochain euh, trimestre bi donc mhm. loolu je pense que nekkul nekkul warul nekk problème l'essentiel mooy nit ñi nga xamante ne nii ñu ngi génn di wax wax dëgg yàlla nag peut-être liñ si jublu mhm. mooy ne comme ni nga ko waxee bu ñu leen tegee loxo après ñu ne bon régime bii dañ gis ngeen ñu ngi nii di jàpp tëj nañ baa jaxate léegi tëjaat nañ Ahmed Suzanne Camara mhm. et parfois même man parfois il m'arrive de me ce que jar na ngay tirer sur un cadavre yoo xam ne maanaam Euh, liñ naan borom gémmiñ guy nàcc du wax jàmm maanaam lii rek lañ dese quoi mhm. cest à moom leer na la ne toogul di xaar naan élection bii di ñëw damay xool nu ma gañee gars yi à Pikine mhm. amatuñ benn yaakaar ci politique salteel lañ dese mhm. parfois aussi dama leen dama leen xaw a comprendre côté boobu dama leen sax yërëm benn côté parce que sa à dire c'est des gens qui ont tout perdu yow politique nga tekki woo dara ci politique amoo dara si politique dara Eh, da ngay xool sa kanam nga xam ne yow sa avenir amoo avenir politique. Mm-hmm. parce que actuellement réew mi moo def benn transition boo xam ne dafa am fu ñu jëm dafa am ay xeetu nit yu ñu soxla te yow doo genre nit boobu. Mm-hmm. malheureusement pour eux saa waay ñi dañu effacé wu tranquillement ci histoire léegi nag loolu da nga koy comprendre nga dem jàpp sa ñàmbur mm-hmm. comprendre ko nga continuer ba tey ñoom dañu nekk di subir. Euh, xam nga ñoom. naqaru defet bi defetu 24 mars ba léegi dafa am ñoo xam ne bàyyeegu leen. digéré guñ ko moo tax ñu bëri dañuy génn di wax waaye nag waxal rek te wax waxi nit. Mm-hmm. boo fi waxee ba saaga ah. ñoom ñoom seen xalaat ñoom ñu yóbbu la si yoon waaye man de bu doon man la ñu saaga man. Mm. waxuma damay damay def yee yoon de. Mm. bu doon man la saaga dinaa xam ne ma koy lijjantee. noo koy lijjantee ah non loolu moom du ma wax si télé. <laughs> non si si la xam dafa am dafa am yëfu réewande yoo xam ne nii. Mm-hmm. mais teguwul fenn Bassirou Diomaye tooñul kenn. dafa ñëw ñu fal ko en tant président mi ngi góorgóorlu ci li mu mën a nekk. sénégalais yi ñu ci teg seen bët soo amee sa problème ak sa biir parti ak seen yit nga ne ngeen dem gérer ko seen biir. mais xëy ba toog yow ku la neex saaga diw dañoo war a rey dañoo war a def dañoo war a def lii am na loo xam ne ay kaso sax waruñ ci yàgg ak yow. loolu moom je l'assume ah, man peut-être du ma dugg dans les détails. mais am na yoo xamante ne nit ku ma ko def du ma ak yow ay parce que yow réewane c'est le réewane ñii mënuñu ko jaay nit ñi. ah vraiment yow ëppoo nit ñi doole ëppoo leen kàttan yow yoroo dara. Ah, ëppoo leen doole yow buñ boo taxawee sama kanam comme fel gon la yor de. nga bëgg a réewantu ci kanamu nit ñi jug di saaga nit ñi comme ça. ma ne ma ne gon la yor de gon. ay <laughs> on se rappelle très bien manifestation yi moo génne woon gon fële ca Pikine ca Thiès. waaw ah, mooy yëfu mooy mooy yëfu non Ahmed Suzanne Ahmed Suzanne Pikine Pikine Pikine Pikine je pense la dëkk. Mhm. ñu fi réewande yii moo war a cessé dama ne la. Mhm. am na fu mu affaire bi di toll nag moo tax autorités yi war a jël seen ay responsabilité mhm. parce que am na loo xam ne nii gars yi bu ñu ah. jëlul seen ay responsabilité na mën na am feneen fu mu egg. parce que non am na loo xam mënut a nekk quoi nekk si biir réew. Mhm. ku la neex wax lu la neex ku la neex saaga ku la neex nga ne dañuy dañ koy rey après ñu bàyyi la nii quoi ngay dox tranquillement c'est trop. c'est trop vraiment alors Momo on se rappelle très bien euh, tey mooy 24 euh, juillet 2024. daanaka bis bi 24 euh, juillet 2023 si nañu euh, teggi woon barrière yi fële ca Ousmane Sonko ginnaaw bu ñu ko barricade